a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu ñëw ci li ci yenn kaay yi ànd ci ak Abdou Diouf. OFNAC di office national bi xeex lépp lu mel ni fraude ak li mu xeetoon la yenn bi di la Soleil ne ñun am na nag sañ-sañ léegi joti ay déclaration patrimoine ñii di ay kilifa nga xamante ne géré lii di sunuy alal assemblée nationale yenn bi kon di ko ca dëggal nañu kon démb daadee na kon yokk lii di sañ-sañu bile OFNAC ab loi Samba Alaar bu le populaire ne ñu nag day daal di ñi nga xam tey élu léegi ñuy wax ñuy wax ci njëlbeenu ak lii ana lan mooy seen am moomeel li tax kon Samba Alaar jàppale nag ñun am nañ ay riche moo tax yikaay bi nag diñ ci ay milliards ya nga xam na leen ak njëglu yaas ba nga xam te wàññi nañ leen yéenikaay bi lu soleil ak jàggatkatam xëyee ci dellu si ci Aïda Ndong ñi nga xam te semaine bi ñu génn kat yéenikaay bi gis na ne nag moo jiitu ci palmarès su ko média yi ndax Aïda Ndong moom yéenikaay bi directeur info moo dellu rek ci kàddoom ci xëtam bu njëkk moom kii fi nekkoon sénatrice libérale ci xët bu njëkk kon euh, directeur info jàpp ni moom an na mu ma dara moom Aïda Ndiong ca kaso boobu sax mu mel ni kon wéetu fa ndax ñii ko jàppale ci euh, biti bokk ci ñoom soxna Dieng Mbacke ak kii di Aïda Mbodj daw coow nee ñu nag ñoom kontaan ñu mukk nag ci nag ni ko procureur ba toroxale procureur booba sax tax yéene kaay bi Le Soleil nee ñu nag ñu bari lañ koy toppe mooy rek ay détails yu bari amu indi ak ci coowal Aïda Ndiong mi tax ñu bari nag jàpp ne Aïda Ndiong moom dañ kaa bëgg a toroxal donte ne kon yéenekaay bi jàppale nag alal bu bu yéenekaay bi Le Soleil ak la laaj nee ñu nag ana nag tey jii fan la dëggoo ndax information manipulation wala nag wax lu dul dëgg sénégalais yi Le Soleil nee ñu nag ñoo yëy tey jii joxe nag seen xalaat ci bile ak nga xam te nag ay bés biñ génn nag moom rek lañ doon a taxoon sax yéenekaay bi nañu mu nëbboon fi beneen nouvelle bu neex nga xam ne nag kilifay réew mi jël nañ dogal yi nag daanu wàññi njëgu gu liaas bi ab loi tax yéenekaay bi l'observateur dellu si ci nañu nag lii di nag ab application bi yéenekaay bi gis ne ne nag fu mu jaar nag dana metti lool ndax anam yañ koy defee nag yéenekaay bi gis ne ba nii daal dara moo ca leeragul la même bu dee ni kon locataires yi yéenekaay bi jàpp ne nag ña ngi tey sant Macky Sall bu baax a ci moom mu gën a xuus ci yëf yi yenn ci ay bailleur wala nag ñi moomee seen agence immobilière l'observateur dikkaak ñoom ñi jàpp ne nag ab décision politique ak cotte la nga xam te nag dañ ko yàkkamti lool lu ci am sàmb dollar bu la populaire nañu nag bu nekkoon nag doomi aadama la nag mën na ne luyaas bi mooy homme de la semaine moom daal am moo fi teg ndax wala ndax paf góorgóorlu bi kon na mu xëyee yéenekaay bi gis na ne nag dañ kaa xeetali bu baax bi ñuy wàññi njëgu luyaas bi ab décision kon yéenekaay bi sol nañu ñu bari at doon nañ ko nëkk te nag tey ji ñette seen xel donte nañ jëlaat seen xalaat yooyu tegee ko ne ndax lii wër ba moom fii ak ay weer yéenekaay bi gis na ne nag bi dana gis koon ab wàññeeku bu am solo ci lam doon fay ci wàllum lu yaas